centre bi nga xamni dañ ko jaglel walum yarum ginar ñu tuddé ko aviculture euh, président de la république Macky Sall moo waxoon ci programme am ñu tax centre boo xam ne day am ci ñetti secteur yu am solo benn bi moy walu horticulture benn bi moy walu tourisme mais benn bi aussi moy walu aviculture moy biñu ñew nek fi tay centre bi nak di centre bu mak boo xamni état du Sénégal ak ay partenaires am ñoo ci def ñetti milliards ak ñaari millions de francs CFA mu nekk centre bu yees boo xam ni de dernière génération la euh, borom xam-xam yi ñu ngi may wax ne ci Afrique de l'Ouest amul centre bu mel c'est le premier centre bu mel nii boo xam ni moo am Afrique de l'Ouest en terre ci wàllu wàllu yarum ginaar donc euh, ma am contenté bu baax ci li ma fi gis ci ci conception bi ci projet bi niñ ko dëggee niñ ko taxawalee ci ñaar fukki weer ñu tabax ko kon boog may félicité bu baax directeur général ONFP ak équipe am yëpp ñi nga xam ne ñoo nekkoon maîtrise d'ouvrage délégué bi féliciter entreprise yi. dañu jàpp ne pour que ndaw ñi dañu war a am liggéey il faut ñu dem ci wàllu entrepreneuriat mais pour ñu dem ci wàllu entrepreneuriat il faut ñu tàggat leen mais boole ko ak secteur privé bi loolu moo tax secteur privé bi ñi ngi fii nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllu yarum ginaar ñi ngi fii parce que ñoom lañ na la. jox centre bi pour ñu pour ñu saytu ko kon bok euh ma ngi rafetlu bu baax ci liguey bi nga xamni moy traduire vision président de la république bi nga xamni mom la am ci formation professionnelle et technique motax ñu am centre bu melni ci gannaaw fi yéen a gis ni ni ngi am benen centre bu ñuy tabax mom tamit mu jëm ci walu tourisme parce que lool tamit dafa bari ay métiers yo xamni ni xalé xale yi war nañ leen ci war nañ ci tagat ci ceeb ñi ngi tabax benn centre bu am ci walu horticulture la mais ci Saint-Louis ak déjà am centre tourisme la centre de formation professionnelle du melni kuy tabax building wala ngay tabax ab ndax centre bi buñ ko tabax dafa am architecture bo xamni architecture bobu, dafa mengo ak centre de formation bi le ministre décidé office national de formation professionnelle moom mooy jouer rôle maîtrise d'ouvrage délégué mu nekk rôle boo xam ni dafay permettre ONFP si tambali projet bi manam site bi nga xamni choisir nañ ko pour tabax fa ñu commencé daf étude suuf commencé xol environnement bi recruter entreprise yi ba nga xamni tabax yi ñu fa wara tabax dina mengo ak li nga xamni ni mom la formation professionnelle laaj yéssal nañu ay lycée yo xamni daf nañ fa équipement yu mucc ayib ba lycée yooyu fi mu ne nii ñu ngi fonctionner centre bii itam ñu jot a visiter gis ngeen ni équipement yu fi nekk nekk na équipement yu mucc ayib muy équipement yoo xam ni office national de formation professionnelle moo gunge li nga xam ni mooy cluster bi ak professionnels yi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu aviculture ba ñu mun a am équipement yi nga xam ni mooy équipement de dernière génération. di fàttali rek ni centre bii nga xam ne tabax nañ ko tey bokk na ci centre yi nga xam ni si walu sous région bi ñoo fi gën a rëy waaye si biir Sénégal daf fi nekk lu ñuy wax centre d'excellence nga xamni ni rôle am mooy permettre ba ñu am une main d'œuvre qualifiée si walu métier aviculture waaye itam entreprise yi nga xamni ñoo yëngatu si aviculture ñu mun fi yónnee sen ay ndaw pour ñu tagat leen ba xam-xam bi nga xamni war nañ ko am ñu mun ko am pour que secteur bi nga xamni da fay contribuer lu bari si walu développement économique itam ñu mën a jouer rôle bi nga xam ne dañ ko war a jouer si wàll wi.